alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. yal na yàlla yokk suñu musiba yal na yàlla utalal lu gën di ñàkk Cheikh Mariam demam dafiy fàttali la Mutanabi doon jaale benn góor ci benn jigéenam. ne walaw kaana nisaau kama faqadna la fuddilati nisaau ala rijaali dafa wax ne bu fekkoon ne jigéen ñëpp dañoo mel ni jigéen ji ñàkk kon ñi jàpp ne jigéen moo gën góor jigéen ju mel noonu la ñàkk muy Seyda Mariama xam ne dundam yëpp ci alquran la ko def dundam yëpp ci yaraate ci la ko def dundam yëpp ci dundale ngir yàlla ci la ko def dundam yëpp ci def lu baax ak fàgg lu baax ak jàngal nit ñi ñu am jom waaye li nga xam ne mooy gën a marqué koo xam mooy itte ji nga xam ne nii moom la yàlla joxoon itte joo xam ne doj du taxaw ci kanamam Seyda Mariam xamutoon xamutoon ci ci ci dictionnaire am mujamam amutoon baati mustahil maanaam mënta am loolu amutoon ci dictionnaire am gëm yàlla gëm boo xam ne boo àndeek moom li muy njëkk a tajriba ci yow loolu la 83 dama ànd ak moom ñi ñi fekkante Nigeria maa ngi ñëw vacances mu war a dem umra mu ngi amee visa moo ngi ñu ànd ak ñëpp mu ne ma xanaa yow bëggoo dem umra ma ne ko an ah, kay bëgg naa dem umra kay waaye aw ma visa mu ne ma xay yow xanaa gëmoo sa ñaan ma ne ko bu fekkee loolu la danaa dem man ak Munzir billet rek lañ jënd téye suñ kurus dugg nañ ci avion bi kënu wàcc Saoudia comme kuy dugg sa néeg noonu lañ fa duggee te loolu yëpp baat bi ma waxoon rek xanaa gëmoo sa ñaan yi moo baat boobu moo def loolu jigéen ju barke la doy na ci barke mooy alquran mooy jëmmi barke te moom dund bi alquran la ko def ku am gan danga ko teral moom kuy teralaate gan la waaye li muy njëkk a teralee ganam mooy oo benn xale ne ko kaay nga jàng alquran loolu moom la nekkee ci këram moom la nekkee ci tukki te terewut këram lim do do daara alquran jigéen jum yar nga nekk jigéen comme jigéen ñi mën a téye kër mën a togg mën a def yu baax yëpp te tere nga nekk jànkat foofu ku yaatu koo xam ne xolam xajoo na ñëpp waaw nit dana dox ba ci kanam rek ñëw tegal ko doomam te tegal ko sa doom te doo wax moom dem ba àgg bind ko leetar mu xam ne kii doomi diw la mu téye ko garde ko ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu la ndax lii yëpp ci jeexi ci mbëggeeli Cheikh Ibrahim la ak yaram ak barkeem ak ñaanam waaye tim ku baay bëggoon la démb maa ngi tari leetar bu ko baay bindoon di wax ne mu ngi jëm ci koo xam ne suma dogit la waaye sama soppe la maa ngi koy nuyu yónnee nuyoo ca Paris waaye lu tax duma wax ne suma soppe la te moom muy sama soppe di jabari sama soppe muy Baay Alaaji Omar Kan di doomi sama soppe mu yaayam Seyda eh, yaa af waaye di doomi samay di di yaayi samay soppe kon li ko wër yëpp soppe la pour Baay ñun nag yàlla daf ñoo defaloon jagloo guñ am ci moom gannaaw bu buñ nekkee doomam nekk goroom nekk xaritam xarit boo xam ne bu dëgër la eh, loo xam ne li ma dund moom yëpp masta am bés boo xam ne mas naa wax ne bu Seyda defoon nangam waaye moom it masuma am bés boo xam ne wax ne ma boo defoon nangam te loolu euh, may ak yàlla la euh, dem na tey waaye demut ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ida maata ibnu aadama inqata amaluhu illa min salaas sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafau bihi waladin saalihin yad'u la yonent bi sallallahu nee doomi aadama bu génnee àddina jëfam yëpp dana taxaw ba mu des ku bàyyi sarax suy wéy ñu koy jariñoo ku nekk xam na tey jii lam école ba mu bàyyi daara yi mu bàyyi njëriñ yi mbàyyi doomi aadama di ko jëriñoo loolu yëpp sarax suy wéy la loo xam ne nii dafay versé ci kontam nga bàyyi xam-xam bu ñuy jëriñoo alquran ji mu jàngale ñi mu ko jàngal ñi mu yar ñi mu jàngal xam-xam ñu wër di ko jàngale ci àddina lépp ba tey loolu dafay nekk continuité boo xam ne nii ku dundam waladin saalix yadu la doom ju baax mu koy ñaanal yàlla yàlla may na ko ay doom yu baax ay góor ak i jigéen waaye doomi roxo yi ak doomi deret ji yëpp kon mu ngi dem waaye li tax nit waroon a dund loolu moom def na ko ci àddina ku bëgg yàlla la bëgg yonent bi sallallahu waxtu bu ma ko tàgguwaan maa ngi dem umra li muy njëkk wax ñaanal ma ma demaat waaw waxtu wu nekk xelam mu ngi aju ci li nga xam ne moom la doon muy Mawlana Cheikh waaye ku bëgg taalibe Baay yàgg sonn ci ñoom Cheikh Jibrima ñu bëri xamuñ ko ci ci bind yi rek lañ koy gis ci ñi fi njëkk a ñëw la ba mu ñëwee Sénégal ba dem ba muy bind fàttalikoom wax ne bañ ñëwee dakaar doomi baay baa ñuy wax Seyda Mariam moo ñu dalal waaye jigéen la joo xam ne itteem ëpp na ittee góor loolu wax jooju waxi soixante-dix ans la ca gannaaw maanaam kon boobu wala wala wala soixante ans ca gannaaw nga xam ne boobu euh, maanaam ndaw la waaye moog itte jooju ñoo ànd ba dem l'islam bi yëpp ñoo ko ñàkk euh, waaye limaanité yëpp ñoo ko ñàkk ndax amoon na yaatu gi nga xam ne mooy yaatu Mawlana Cheikh Ibrahim mooy mbaax mbaax bu xasee ba am ñëpp ci xaj lu ñëpp xajul rek tuddagut mbaax loo xam ne say xarit rek a ci xaj tuddagut mbaax say mbokk rek a ci xaj tuddagut mbaax say dëkkandoo rek a ci xaj tuddagut mbaax sa mbokk julli rek ñoo ci xaj tuddagut mbaax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne mënu leen a xata xajal nit ñëpp ci seen alal waaye man ngeen a yaatal nit ñëpp ci seen jikko ji yaatu seen jikko ji baax moom amoon na jikko joo xam ne ñëpp xajoon nañ ci loolu nag bokkoon na ci li nga xam ne moom moo doon luy xac ci nit ñi pour ñëw ci moom te ko xam rek dootoo bugg a tàggale koog moom yal nañu ko yàlla fayal yàlla dëkkale koog Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu yal nañu yàlla fayal Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam na lii yëpp barke la ci barkeem bi salaamaaleykum